taalibe bàyyi Ñas yi jóg leen muqaddamu bàyyi Ñas yi wàcc leen bés bu màgg bés bu sell xadara juma national képp kuy lal malaanu wadifa te jokk ci Baay fa ñoo fas yéen a dajaloo ca stade Léopold Sédar Senghor ngir amal fa xadara juma national kan moo organiser bés bu màgg bi ni mel caatu Baay Ñas ba borom yitte ju kawe ja Cheikh Aboubacar Cheikh Ibrahima Ñas ñu gën koo xam ci Baay Mbay MC 14 février bés bi ñu jagleel mbëggeel ñoom seen mbëggeel ci baay saaxibul fayda at tijaaniya tasaare lislaam ci àdduna bi seen bëggel ci cheikhuna ahmed tijaan seen mbëggeel ci yonent bi moom lañ fas wa wanaj bës bi nag fañ koo pare ne muqaddam bu mag ba baay daam gaaj bu ngéej mouhamad wul di cheikh abdallah muritani cheikh abdurahman ndaw alkarim ca kaarang taxawaayam ci xadara bi ñëpp ko lu ak cheikh yérim sek di journaliste investigateur nekk taalibe bay ñes ramajalisto boutique yaa nen Ngom Latir homme d'affaires taalibe Baye Maodo Baye design Kéba Niass sëtu Baye ca Dakar journée Cheikh Ibrahima Niass ëpp naa wuute yokkute Baye Mbaye MC caatu Baye Niass yematoo ci yar ndaw ñi ñuy xidmal Baye ca Shababul Fayda yematoo ci jëriñ jaamu yàlla yi fankee yokku dajale muqaddam yépp ci xadara juma national gàcce ngalaama ayyadaka Allahu wa nasarak